dafay indi un plus au débat politique mais quand on se cantonne vraiment sur. et que dire de l'autre candidat. bi bi koy woo ci débat Pape Djibi. non non bon Pape Djibi suma jarbaat la tey bu doon seet candidat yëpp moom moo ci gën a bokk ak man Pape Djibi sama sama jarbaat la sa mère c'est ma sœur son père suma grand frère la que je connais ba pare bokk ñoom benn dëkk donc Pape Djibi. Pape Djibi mën naa wax ni Pape Djibi doom la ci man jarbaat la ci man mais dafa am loo xamante ni man je lui aurais conseillé que am na foo xam bu fa toll ci campagne bi dafa war a éviter yenn yi parce que y' a vingt candidats non dix neuf candidats. waaw ah, maintenant de di set la. waaw y' a y' en a mhm. nga extraire ci kenn ne dama bëgg a débat yow te loolu aussi nee naa njàngat bi ñu ci war a def mooy. loolu mooy yow yaay candidat bi fi gën a important fii donc yow war nañ waxtaan. loolu rek la du leneen parce que dëgg ba Pape ji mu ne professeur Daouda Ndiaye dama bëgg ñu débat. dëgguma ko ma keneen. dëgguma ko waaw bi mu tollal xaw a tollal waaw dëgg dëgg dëgguma mu ne euh, comment dirais-je Khalifa Sall dama bëgg ñu débat dëgguma mu ne Mame Boye Diao dama bëgg ñu débat mais nga ne Diomaye na ñëw débat c'est salutaire mais je crois que tey ki ñu waroon laaj kay débat ak moom. ki nga xamante ne moom moo génn ne il est le la continuité yow nga présenter sa candidature ne da ngay xeex pour la rupture mais kuy incarner continuité bi mais kooku nga war a laaj Amadou Ba la waroon ne Amadou damaa bëgg ñu débat parce que yow da bëgg a continuer te ñun bëgguñu ko ne ñun dañu bëgg a rupture su waxoon loolu j'aurais dit que Pape bi est cohérent dans sa démarche politique mais tu prends quelqu'un boo xam moom il veut la rupture yow tu veux la rupture nga ne nga ne yow mi bëgg la rupture ma bëgg la rupture nga ne kaa ñu débat déedéet Pape s'est trompé sa simplement de challenger oui mhm. il s'est trompé de challenger mhm. le vrai challenger aujourd'hui c'est Amadou Ba bu ñu demoon nag tey deuxième tour ñu ne Pape Djibi génn na Diomaye génn na ah laa moom mën na toog loolu laa mën na toog mu ne ko Diomaye moom débat boobu moom c'est incontour incontournable parce que ñoom ñaar ñoo fi des il faut choisir entre les deux mais aujourd'hui nous en sommes à 17 ba mu ko wax sax boobu yow nga tëb ci kenn rek daan ne ko kañu débat kañu waxtaan mais loolu aussi nee naa leen dafa am lu mais keneen dafa am lu fi debaat ñëpp tamit mooy ku mel ne Anta Babacar Ngom waaw euh, moom naan ay non jomaay euh, man aussi xam foofu aussi man euh, jibi am lu ma metti bi ma ko gisee parce que xam lu tax Anta je l'estime beaucoup mhm. et je la considère comme une nièce parce que son père suma xarit la mhm. Anta bu mu commencé ba léegi. Mhm. c' est l'une des personnes l'une des candidats euh, euh c' est la candidate boo xamante ne nii qui fait mieux sa campagne électorale. Mhm. ci candidat yi. Mhm. gis naa ne en tout cas sur le terrain ni mu commencé woon ak ba léegi il y a une ascension même dans sa campagne en tout cas dans sa communication. au point que boo xoolee tey. parce que dafa am benn boo xamante ni chaque jour je crois waa Jeune Afrique dañ koy génne mooy les vidéos les plus suivies ci campagne euh, électorale bi. Mhm. barki démb damay xool euh, classement bi mais j'ai vu Anta en quatrième position. oui oui. Anta était en quatrième position après euh, Diomaye en tête Cheikh Tidiane Dièye Habib Sy moom mooy ñëw après Aliou Dia ñëw. Mhm. donc loolu rek dafa am lu muy firnde parce que au départ elle n'était pas dans le top 5. Mhm. mais léegi mu ngi dugg ci top 5 ça signifie que moom sa campagne est très bien suivie xam nga lu muy wane. que son discours est suivi. parce que ku dangay bëgg sa discours ñu koy suivre. Mm-hmm. même Amadou Ba sax moo ko raw. Mm-hmm. mais kii boobu mu jëloon ba pare yoon boobu mu jël mais na ci continuer. Mm-hmm. parce que pour man je crois que les débats de personne là. Ah, daf koy daf koy tardeel man. bu ma ko déggee mu ne bu ma ko déggee muy wax. Ah, ne ne ne dama bëgg suqali mbay mi dama bëgg suqali lii dama bëgg indi lii ba pare di indi ay argument vraiment je tombe en extase. parce que je me dis kii au moins il a un projet politique cohérent beaucoup ont adhéré à son discours politique. loolu nag pour man Anta bu mu ko yàq parce que xam nga tax yooyu daf koy tardeel ay bon je suis perturbé waaw non waaw mais non jaru ko sax mu naan Anta mooy Anta parce que xam nga dans le slogan Sonko mooy Jomaay ñoom dafa am loo xamante ni moom lañ ci ëmb. dafa am lu Jomaay waaw Jomaay mooy Sonko dafa am lu xew sax ba tax loolu ñëw moom laa leen wax. tëbul tëb rek mu nekk slogan ñoom en fait a wax. ci ci ci gàttal ji bi mooy. ñun li ñu intéressé ce ne sont pas mais c'est le projet qu'on a mis en place. Mm. que Ousmane port que Ousmane porte le projet. que Diomaye porte le projet que El Malick porte le projet le projet c'est le projet même su fekkente ne am na ci ku ñu jàpp ne mooy leader charismatique bi mais ñoom li ñu gën a soxal dañuy wax ne ñun suñu projet moo ñu gën a ëppal soxla que vraiment la personne physique. Mm. moo tax ma ne entre daal vraiment pour lui donner sa conseil Anta continuer ci ni nga commencé woon moo gën. Mhm. parce que tu es très bien suivi vraiment tu es tu as un très bon discours politique continuel ci loolu mais am na yoo xam ne data yoo xam ne c'est-à-dire dafay daf lay yàqal lu bari daal te je que c'est pas le moment am na yenn type de discours yoo xam ne na ko bàyyi ak ñeneen ñi na moom am na fu mu commencé et je vois que ne boobu ba léegi elle une montée en comme son comme comme comme l'indique même le <laughs> waaw moom déjà arc mooy mooy mooy kiyam xam nga flèche moom day day dem. Mhm, mhm. donc nekkoon na ci loolu rek. man daal ci man daal man daal c'est le conseil c'est que je lui donne li ci des nag na ko bàyyi yeneen candidats yi. Mhm. mais dans tout ça Diomaye doit vraiment se réjouir en tout cas de. ku ñu tiire ci kawam quoi de l'attention que les gens portent sur lui moom quoi. mais déjà moom moom moom moom mu ngi ñëw comme ñeneen ñeneen ñaa ngi proposé ah mais moom quand il parle de création d'une monnaie communautaire euh, déjà jur na waa xam nga non monnaie nationale sax xam nga xam nga xam nga moom monnaie ñoom dañu wax monnaie nationale mais gis nga coow loolu c'est bien xam tax le problème de la monnaie c'est pas un tabou ji bi mm-hmm. c'est pas un tabou xam nga ci bi monnaie lan la c'est un instrument d'échange mm-hmm. instrument d'échange la mm-hmm. mais aussi c'est un symbole de souveraineté mooy yow moom nga sa bopp mais ñun tey boo xoolee wax dëgg yàlla ji nag ñun suñu souveraineté politique. Mm-hmm. mais suñu souveraineté monétaire moo ko moo ko koy gàllankoor. Mm-hmm. suñu moo koy gàllankoor suñu même suñu souveraineté économique. suñu mm-hmm. suñu euh, monnaie bi moo ko gàllankoor. or bu fekkee ne ñoom dañu lancé benn débat sur la monnaie nationale. parce que ñoom li leen gën soxal sax ñoom nee nañ vraiment l' communautaire. Mmh. comment faire pour que ñoom tey ñu am benn monnaie boo xam ne kenn arrimé wu ko vraiment à l'euro parce que bu fekkee ne tant ñu ngi koy jël di ko arrimer ci beneen monnaie. Mhm. ça veut dire que ñun ba léegi amaguñu suñu indépendance monétaire suñu souveraineté monétaire. Mhm. léegi affaire monnaie souvent quand on en nit ñi dañ jàpp ne bés bu ñu amoon ñun suñu monnaie bopp c'est comme si on tombe dans la pauvreté. waaw ah, loolu lay dural di. bi àddina bi àddina bi. Mhm. ñaata pays ñaata espace monétaire union monétaire ñoo fi am. ñaata fi am quatre. quatre ñoo fi am. muy UEMOA CEMAC euh, UMCO ak la zone euro ñooñu ñoo fi nekk. Mhm. yeneen pays yëpp te loolu xam nga ñaata lay représenté au plan mondial. ñaata 7 pour cent. Mhm. ça signifie que 93 pour cent yëpp ci àdduna bi ñoom seen monnaie bopp la ñu yore. seen monnaie bopp la ñu yore. waaw donc loo xamante ni man tey mënoon naa d' sax tey ñu ne àdduna bi yëpp 95 pour cent yëpp c' est ay union monétaire lañ 5 pour cent yi ñoo am ay monnaie monnaie national mais alors que c'est le contraire. Mhm. waaye tey bu ñu doon analyser en Afrique les pays les plus pauvres c'est les pays qui utilisent le franc CFA. les pays mhm. les plus hauts c'est les pays qui utilisent le franc CFA. Mhm. mooy waa UEMOA ak waa CEMAC. Nigéria bii. nga xam ne moom c'est la première puissance économique. Naira la Afrique du Sud seen xaalis bopp lañu yore. Mhm. Égypte seen xaalis bopp lañ yore. Mhm. Gambie gii nekk suñu biir bii monnaie boppam la yore. Mauritanie gii nekk fii monnaie boppam la yore. Guinée ne monnaie boppam la yore et boo xoolee même la Guinée Bissau ba mu duggee UEMOA ba léegi ñoom xool seen pauvreté ca la gën a yokk donc pour dire tout simplement que CFA bi tant que en tout cas réformé wuñ ko ba xoolaat joxaat ko beneen dimension wala génne wuñ ko sous la dépendance tout simplement de l'Europe en tout cas de la France jàppal ne nous serons toujours des états pauvres et du ñu am souveraineté monétaire. Mm-hmm. gis nga monnaie c'est une question de de souveraineté ji bi. Mm-hmm. ñun noo mën a jàppee ne xaalis bi ñu utiliser France lañ koy tëggee ba léegi dañu ko indi dañu ko jox. Mm-hmm. ñun suñu wàllu bopp ñun ji bi amuñu xarañte ba mën a tëggal suñu suñu monnaie bopp. te France mu te moom ñoom ñuy tëgg seen monnaie bopp. Mhm. quand ils utilisaient le franc français ñoom ñoo ko doon tëggal seen bopp. Mhm. waaw lan moo tax li nga xam ne depuis 1945 ba léegi ñoom ñu bëgg a jël xaalis CFA bi di ko tëggee France di ko di nit ñun dañu ko jox ñu ñu koy jëfandikoo. Mhm. ba pare ñu am benn code part boo xam ñoom dañ leen koy jox. ñu bëgg wax ne ñun nous sommes des états encore indépendants. mais c'est pas vrai Pastef nag ce sont des souverainistes. mënoo wax ne souverainiste nga ba pare. li nga xamante ne mooy tëg tënk sa souveraineté muy mone bi mais doo ci wax mhm. il faut savoir poser le problème de la monnaie mhm. France ñoom dañoo xam ne monnaie boobu seen seen seen seen survie économique sax daf ci daf ci daf ci weeku parce que français yi li ñuy dundee ci CFA bi dafa dafa métti mhm.